Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Sénégal 7. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sénégal 7 TV. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs rien que pour vous présenter votre émission Chic and Choc. xam ngeen ko nag ñun chaque instant daam ñoo xam ne ñoom la ñuy àndal ci plateau bi décortiquer les milieux de la mode sénégalaise et africaine en général tey nag ma am mbégte ak kontaante dalal fii ñett la sa laay wax ñaari mannequin yu jigéen ak benn agent mais kenn ki mu ngi à côté en attendant mais sans plus tarder comme ni ma amee chaque jour le plaisir c'est les femmes d'abord hein, parce que man xam ngeen ni ma mel envers les femmes je les aime beaucoup hein, mais avant tout d'abord bonsoir Facha Bonsoir, docteur. Vous allez bien Ça va, je suis très bien. C'est un plaisir quand même plaisir Plaisir Merci pour l'invitation. Merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation. Euh, ñu bàyyi la rek nga nuyute avec euh, les internautes et les téléspectateurs de Sénégal 7. Bonsoir chers internautes, bonsoir chers téléspectateurs de sénégal7.com. Mm -hmm. Je m'appelle Fatou Meng de mon vrai nom, mais je suis plus connue sur le nom de Facha à la Queen Lebo. Mm -hmm. Je suis dans le milieu de la mode depuis 2015 ah super la kiwin lébu kon kiwin nga nekk lébu en même temps. waaw je suis lébu. Hmm. je suis lébu parce que euh, mes parents sont lébu. Hmm, d'accord que ce soit ma mère et mon père. d'accord donc c'est je me je me la queen. Hmm, parce que aussi je suis la reine de ma famille. Ah, je suis la seule fille de ma mère donc voilà pourquoi ah, j'ai dit que je suis la reine. tu es unique quoi. ouais. mais j'espère les trucs de lébu la yooyu noonu ñuy kii ànd ak yow. si si ànd nañu ak man mais ñoom dañoo yaru dañ may sàmm quoi. <laughs> dañu fi yëngal gisam <laughs> ah. sans plus tarder ñu tourner aussi jàkkaarloog benn manager xaw ma manager la ou je sais pas peut-être il va nous expliquer davantage sur ça il se nomme tout simplement Gas Fashion bonsoir Gas. bonsoir Doudou. vous allez bien. c'est un plaisir. plaisir partagé en tout cas. mais yaa ngi si jàmm ah. maa ngi si jàmm ñeme nga micro bi léegi. <laughs> waaw ñu bàyyi la ngeen te gars yi Bon, avant tout, je vous remercier par rapport l'invitation. Voilà, moi, de surnom, c'est Gas. Voilà. Euh, je agent de mannequin dont euh, l'agence Voilà, je suis le manager et le moniteur même. Hmm. voilà un peu sur Gas. pourquoi le surnom de Gas Fashion De Gas Fashion. En fait, Gas, euh, c'est le diminutif de Gassama, en fait. Gassama voilà ah, ça vient de Gassama. Gassama nga sant euh, non Mbaye laa sant. Ducateur. Ah. Hmm. Mbaye mu <laughs> de. Gas ça vient de Gassama. Ah. du coup voilà la plupart des gens m'appellent Gas bon mes amis. la dans le de la mode et tout donc euh, Gas. mais le Gassama ça vient d'où? le de mon de ton homonyme. voilà ah, d'accord ndeysaan et fashion bi. <laughs> fashion hmm. de la mode. Euh, dégg fashion wala mode bi mode bi. moo fashion bon ça dépend des gens ni ñu ko gisee rek. ni ñu ko gisee si toute façon. non mais on veut que tu nous expliques. bon voilà bon y a des y a les gens qui m'appellent Gas Fashion Gas Fashion à la polyphénie du coup. di ko tur bi laaw bon voilà mën nga si dara. bon bon bon bon bon d'accord. <laughs> lui c'est Gas euh, Fashion tey mu neex Fatou ñu ñëwaat ci yow et depuis que t'as dit que c'est depuis 2015 c'est dans le milieu de la mode. oui depuis mars 2015. depuis mars 2015 ça fait. six ans ou cinq ans et quelques. Oui. D'accord. Et depuis lors, c'est quoi de positif que tu peux nous dire dans le milieu? Pour moi, le, milieu, il a que du positif. Mm-hmm. Malgré que dès qu'on parle de mannequinat mm -hmm. ou bien de, de, de mode, mm -hmm. on est très mal jugé. Déjà, dès quand tu es femme, tu dis que je suis mannequin. Mm-hmm. Déjà, on te classe, on te, on comme une fille euh, mal éduquée, une fille qui n'a mm-hmm. pas de valeur. On te voit comme, entre parenthèses, une prostituée ou bien quelque chose comme ça. Mais pour moi, le milieu, c'est que du positif. C'est que, du, positif. Parce que c'est le milieu qui m'a permis aujourd'hui fu ma ti génn on sait que celle-là c'est la Queen Lébou et je suis fière de l'être parce que mosuñu ma fekk ci boîte de nuit par exemple may mhm. taxawaal ou bien quelque chose comme ça mhm. donc pour ma nekk ci milieu bi taxul nga yàqu en fait taxul nga yàqu wala mais bon dangaa wax ni mosuñ la fekk ci boîte de nuit yi mais sa morom yi dañ leen di fekk ci boîte de nuit yi. mais ça dépend tout pour man lépp choix la se fait. Mhm. c' est pas que les mannequins qu'on retrouve dans les dans dans les boîtes. Mhm. suñ demee tey di boîte boîte bi fees dell. Mhm. nekkul ñu fa nekk yëpp ay mannequins lañ. mais dinañ gis ay mannequins y a des mannequins oui mais. c'est normal il y a des mannequins il y a des secrétaires il y a des il y a des il y a des filles il y a tout le monde en fait. d'accord mais si on voit les mannequins on va dire que les mannequins tey une fois qu'on dit les mannequins t'en fais partie. mais c'est normal parce que en fait ñoom ñoo ñoom ñoo siiw. Mhm. comme lu ñuy wax siiw lu jaami borom. d'accord tey jii bu je je vais dire une mannequin bu ànd ak tey jii avec une secrétaire. Mhm. c'est la c'est la mannequin qu'on va qu'on va qu'on va parler de. de la mannequin et tout parce que c'est elle qui est connue c'est elle qui est sur les réseaux sociaux c'est mhm. elle qui est exposée en fait. c'est ça d'accord c'est ça. d'accord euh, euh, c'est elle qui est connue c'est qu'elle c'est elle qui est exposée ça que yow boo àndoon ak bijou tey dañuy wax ne. waaye euh, su ma àndoon tey ji ak bijou. Mhm. man la ñuy wax duñu wax bijou par exemple tey su ma àndoon ak bijou. Euh, man ma sol suufees. Mm-hmm. bijou sol mini dañuy bàyyi mini bijou bi wax man sama suufees parce que man eh, man la ñu xam loolu moom ça peut pas <laughs> si si si. ah si tu bijou tout à l'heure parce que non si. t'as vu bijou bien sûr j'ai ah, vu bijou tu tu tu bijou soo ko. bien sûr parce que man la ñuy wax parce que en fait man man on va dire c'est elle la man quand ñoom ñooy sol yëfu vulgaire yi. waay oh, oh, ça va pas passer non mais si si si ça va passer. <laughs> d'accord mais est-ce que c'est pas de votre parce que la plupart des mannequins comme li ñu ko waxee sànq boo waxee ne mannequin laa rek ñu am fu ñu la classé ça veut dire que yéen da ngeen a am ay traces daa am loo xam ne da ngeen ko implanté ci biir milieu bi quoi en fait. Mm-hmm. c' est pourquoi une fois que tu dis que je suis mannequin en tant que fille on te classe quoi on dit que ah ñoo ma en fait. waa waaw am na terme bu olof Ndiaye di wax. que je mm-hmm. maîtrise pas trop. Mm-hmm. Euh, genre euh, bu bukki yabee je sais pas quoi. si doxalin bala mm-hmm. je pense que lépp ñun la en fait. man je vais pas nous jeter des fleurs. parce que tey jii ñun ñoo doxee noonu peut-être ba ñu ba ñu war ñu mën a indexer noonu. d'accord pour man. Euh, suñu manager As Moussa que je salue de passage il a l'habitude de nous dire mm -hmm. euh, tout ce qui est précieux doit être rare donc devenir rare pour être précieux aux, aux, aux yeux des gens. Mm -hmm. C'est pas parce que tu es mannequin rek que da nga war a traîner n'importe où. Normalement tu es mannequin on doit te voir dans les défilés les shootings et donc tes activités point mais pas ngay dem di taxawaalu n'importe dem ci boîte yi dem ci resto yi ci hôtel yi. di tamba di tourner quoi en fait ça de sens des gens comme Gas Fashion ñoom ñëw taxawal seen oto yi jël la yóbbu la. non mais <laughs> pourquoi nga yóbbu gas mais c'est ça la réalité soyons <laughs> réels quand même parce que la plupart des défilés une fois que tu pars là-bas des défilés da ngay gis en un certain moment yenen oto yi di ñëw tu vas savoir que ñii bokkuñu ci ñii. te pourtant voilà pourtant défilé bi su jeexee ay mannequin ngay gis ñu ñëw dugg ci oto yi dem. waaw mais ku nekk ak sa choix on est tous des grandes personnes ici. Mhm. man par exemple su ma paree défilé sama yaay tant que ñibbi ma du tëdd. donc pour man lépp si éducation bi la si entourage bi la parce que si tu vois. ta fille mu dem défilé ji ba 2 heures 3 heures du a tu la vois pas ñibbisiwul. Mm-hmm. normalement en tant que parent war nga woote laajte fu mu nekk. yéen da ngeen di toj adduna bi te paa yi ak mère yi du ñu comprendre. oui mais ça ça ça ça c'est une raison pour que parents yi bañ a inquiété wu. je vois des filles yoo xam dañu génn seen kër une semaine deux semaines du ñu ñëw du ñu nekk seen kër seen parents yi du ñu inquiété c'est trop bizarre pour moi. c'est trop bizarre man sama yaay madame 21 ans lañ koy woowee déjà. fu ma munti nekk 21 ans elle appelle pour demander. foo nekk si et tout donc pour man lépp si éducation. na xam ne nag tôt ou tard tu vas partir hein <laughs> <laughs> c'est clair et d'accord sur ça aussi parce que wax nga sànq am na ay secrétaire de trucs comme ta toi t'as vu tous ces kii quoi en fait mais yow choisir nekk leneen lu dul mannequin. Bon, à la base, c'était pas mon choix. Mm-hmm. Je voulais pas être mannequin à la base. Mm-hmm. Euh, je voulais être gynécologue à la mm-hmm. base. Et j'ai fait la série scientifique d'abord, d'ailleurs pour ça. Mais après, ma vie a basculé. Je suis tombée malade. Je pouvais plus continuer mes études. Et comme j'ai un oncle qui est manager, Asmoussa Assam, je suis allée intégrer son agence pour ne pas rester à la maison à m'ennuyer. Et depuis, euh, voilà, je ne peux plus me du milieu. D'accord. C'est ça veut c'est quelque chose de famille. disons. ton oncle jël la dugal. waaye di la favoriser quoi c'est ça. non pas de favoritisme pas de favoritisme au contraire il me pardonne absolument rien. c'est sûr. ah doo favoriser booy bi. <laughs> pas du tout. <laughs> ok baax na ñu ngi ñëwaat ci yow gas aussi euh, parce que yaakaar na avant ngay ubbi sa agence nekk manager di manager ay mannequin mhm. am na foo jaar. est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci cursus boobu. bon cursus bi j'ai été de temps. voilà pour étudier le milieu quoi on va dire. bon pas pour étudier le milieu parce que euh, c'est une passion à moi. depuis très longtemps. Hmm. du coup voilà j'ai été mannequin pour de temps. Hmm. et c'est vers les 2014 les années 2014. Hmm. je pense ouais, que j'ai ouvert l'agence de mannequin. qui se nomme Fashion Model Agency. donc je le manager le moniteur même. Et il pas mal de mannequins de nos jours qui défilent les grands podiums du Sénégal et de l'international. D'accord. Bon, là, euh, qui qui ont sorti dans l'agence. Dans C'est une fierté en fait. OK, super. nga yëkkati baat bi tuuti aussi s'il te plaît. Ouais, parce que daa xaw a low quoi. te après ñoom dañuy dafa low quoi. <laughs> Non, yëkkati ko parce que ñee dañuy am problème auto. <laughs> Euh, comme tu l'as dit, yor nga agence et tout, ngay manager. Waaye la plupart dañuy wax ne yéen yéen ay yàq mannequin surtout mannequin yu góor yi. Yéen ay tax ñu viré quoi en fait. surtout man kay góore. waaw <laughs> loolu doy na waar de. loolu doy na loolu soo ko waxee. bon mm-hmm. euh, du ma ko affirmer parce que nekkul lu am. nekkul lu am primo. Mm-hmm. secondo mi man kay jigéen ñi comme góor yi. Mm-hmm. muy sama agence. muy yenn agence yu bëri yu fi gis. donc y a des man kay yoo xam ne réglé nañu ko quoi. donc euh, je me dis ne. manager yi wala agent yi noonu lay détourné. il y a des mannequins t'as a des que kon. il y d'autres. yoo xam ne rek mm. en a des mannequins tous les mannequins je dis. non tous les mannequins ne peuvent pas mënuñu mënuñu tous les mannequins mënuñu rek la bon man lu ma gis. Mm. laay a wax lu ma gisul mën mais euh, la plupart des mannequins qu'on voit aujourd'hui surtout les garçons. Mm. on les taxe sur l'autre côté la façon de marcher la façon ñoom ñuy exprimer wu ci di mais c'est quoi ça c'est quoi ces délires te pourtant dañ lay wax ne. ci agence telle laa nekk. kon ça veut dire aujourd'hui si tu veux être là en train de dire que non agence yi ma gis nii ak nii ak nii ça peut pas se concevoir. xam nga li nga wax yaa ko gis di koy wax. Mhm. man lu ma gis muy sama agence beneen agence ak mannequin bu freelance. Mhm. laa mën a juger lu ma xamul. Mhm. du ma ko juger. doo ko juger kon ça veut dire sa sa agence amul ay yambar. sama agence. du ma ne amul <laughs> yambar mooy lan na nga dégg ba léegi wax <laughs> du kàttan bi yow. <laughs> mooy lu ma lay expliquer man exemple sama agence. Mhm. ñu man koy jigéen comme góor yi. Mhm. dox bi day macha allah. day kii góor ñi dañuy dëgër. mais góor yëpp a dëgër du quartier. góor boo dëgërul looy même. Ah, ah, da ngay njalaxaane. mais loolu yaa gis hmm? yaa ko gis. yaa ko gis yow. waaw waay jour casting casting bu ñëwee ñu bi ñu nekkoon l'autre jour toi et moi du truc comme ça. Euh, y a des mannequins que toi en personne t'as dit que non ça c'est pas normal pourquoi pourquoi pourquoi. Donc, ça veut dire que tu sais très bon, bien c'est pas que pourquoi pourquoi pourquoi parce que tey je me dis tey exemple bon man kay bon nañ dem casting. Mhm. mais tey un débutant euh, je me dis chef d'agence am. Mhm. war na ko war a mën a wax mën nga dem si casting bi ou pas. parce que mhm. tey exemple bon un débutant bi doo rek ñëw tey. suba casting am bu demee foofu tak bon. am na nu muy doxee rek ni xam na ne voilà kenn xamul. mën na ne agence ba la nekk ne agence telle wala telle wala telle. Mhm. les gens mën nañu xalaat ne agence bi. liggéey amu fa wala lii amu fa parce que kii te du ñu xool en retour que ne nouveau la. nouveau la tu vois donc moo tax mën na la man lu ma gis laay jugé. tu vois mais loo gisul doo ko jugé. mais aussi sur ce point parce que mhm. yéen euh, agent yi. Mhm. dégg naa yéen ay makkaro booy yi quoi yéen ay makkaro seen mannequin yu jigéen yi ak yeneen gars yi nekkul ci biir milieu bi ça veut dire. ñii ñëw wax la ne gel bi daf ma neex. peut-être ay ñoo xam ne seen portefeuille diis na des trucs nga xaw a ñëw comme facha su nekkoon sa kii nga xaw ko wax ne non kii sama gain la kii sama frère la nit ko baax la makkaroo leen. du dugaat yow aja daga quoi. <laughs> merci beaucoup. li nga xam moom. Mhm. ah mais pourtant ça ça existe dans le milieu en fait. gis nga li wax nii. Mhm. xaw ma la moo tax ñu indexé milieu milieu mannequinat. parce que loolu moo yàq milieu bi. en fait mhm. mhm. te man gisuma ko si. Mhm. mais mën naa la si jox ay exemple y' a d' autres secteurs. oui personne ne disconvient pas. mais attends, tous les secteurs am na loolu. la moo tax ñuy ñëw di indexé. parce que on parle de la mode actuellement. ok on parle de la donc li ngay wax noonu. man personnellement. am na fépp. bon du ma ne euh, ñàkkul bañ a am fépp. am na fépp mais man personnellement. fonctionnaire ma noonu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñu ma xam ñu samay naataangoo. Mm-hmm. ñu may bokkal milieu bi. Mm-hmm. ñu nekk yor ay agence si ñu ma xam. si lu may jugé laay wax de. wu ñu noonu. donc man li nga may wax mënu ko mënu ma ko mënu ma ko mënu ma ko développer en fait. te du ma ko développer mënoo ko développer wala tu veux pas. du ma ko développer parce que gisuma ko ba kay développer exemple si man man exemple exemple bon je prends un exemple si man. man li ngay wax. def ma ko. defoo ko dugguma si. yow mosoo makaroo benn xalaatuma oh, non. non c'est ah pas que je te connais. mais je te connais pas. mais attends raison pour laquelle et les euh, mhm. euh, ku xam gas. Mhm. day xam ne gas. Euh, nit ku dëggu la en fait. Hmm. damay xaw a. est-ce que nekkul ne da ngay vanté wu nii. bañ a non non non non loolu je pense que yow yaa ngi ko dégg sama juum. d'accord ah, bon muy samay mannequin que muy mannequin freelance wala mannequin bu nekk benn agence. Hmm. bon toujours même wax bi la ñuy wax. donc man hmm. dama set macha allah. da nga set. macha allah c'est sûr et certain. et certainement. donc Quand ça veut dire que tu côtoies pas les autres personnes qui sont bizarres dans le milieu et tout. qui sont bizarres c'est-à-dire. qui sont bizarres parce qu'on dit que la plupart aussi des garçons dans le milieu dañoo efféminés. tu confirmes ou tu confirmes pas. bon déggoo li ma la wax. mais c'est un mooy li ma lay wax. non tu confirmes ou tu confirmes mooy li ma lay wax. Hmm. gis nga nit ku nekk tamit. Hmm. article bu mu am. Hmm. su si si défilé. d'accord wala whatever si leneen ak leneen. exemple comme kooku nga ne dafay efféminé. xëy na tic est-ce que tu vois des mannequins euh, ou bien des garçons yoo xam ne dañoo efféminé est dañ koy gis ci biir milieu bi. bon man de gisuma ko. gas non tu dis pas la réalité. ça ça ça c'est mais du cartel moi je parle de moi. Euh, non nga yow ci yaa ci milieu bi. waaw da ngay dem ci événement yi. da ngay participer ci événement yi da ngay gis da ngay dem toog di xool. yow mënoo wax ne tu vois pas ça. ba bàyyil nag de xaanju ko ba. man maa moom sama bët. maa moom sama conscience maa moom sama xel <laughs> maa moom sama bopp. mooy li ma lay expliqué y a des tics yoo xamante ne dafa nekk si nit. Euh. nekkuma di défendre kii wala kii wala kii wala. non waxuñu loolu parce que en fait euh, xam chaque jour gars yi di toog ci biti di gis di wax ne milieu kon ça veut dire vous les responsables yéen war a défendre milieu bi vous les responsables boo leen bëggee toog aussi di wax ne ça ça n'existe pas dans le milieu ça veut dire que dafa am loo xamante ne dafa am mhm. euh, nit bu bonee feneen mhm. ñëw rangé wu si mannequinat bi mhm. te daf fi bëri mais ngeen dóor ko non attends je te dis une dafa am similier yëpp moom laay expliquer. Mhm. daf si bëri li ngay expliquer. Mhm. donc ñooñu ñu bu rangé si mannequinat bi. Mhm. nous on les. Euh, da ngeen di accueillir ou pas du leen accueillir comme des mannequins en fait. ñu jigéen comme góor. yow da nga nekk si la nga nekk si la bon. Mm-hmm. yow ne bëgg ranger si mannequinat bi. Mm-hmm. loolu yow la concerné mais man personnellement je vais dire. Mm-hmm. man du ma du ma du ma cautionner loolu. te je vais pas t'accueillir avec. bras ouverts pour te dire que voilà tu es la la en fait te nga koy bàyyi. mu gën a kii muy gën a dem. pourquoi pas ne pas organiser quelque chose en disant que ces gens là yoo xam ne ñu ngi yàq milieu bi. parce que bu ñu waxee milieu de la mode rek dinañ wax ne gas ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk léegi man xam nga man lan laay nekk di di xeex souvent. Mhm. milieu de la mode bu ni moom mi ni mannequinat bi sax laay wax. Mhm. mode bi c'est mooy ëmb lépp. Mhm. mais mannequinat bi laay gën a focaliser. mënuma nangu. ñuy jël mannequin yi di leen indexé. wala chef d'agence wala bon képp ku nekk si. ci milieu di leen indexé soit si lii bi dee góor la wala si lee bi dee jigéen ñi man loolu duma ko cautionné du ma ko nangu. te duma ko mës a nangu. te fu ma déggee ni kay wax. yow xam nga ma dama si. wax li ma si war a wax def si li ma si a def. mais man exemple kon li ngay wax noonu man j'ai le plein droit ne la gisuma ko dégg ma ko parce que xam nga moo tax. te pourtant gis nga ko dégg xam nga la moo tax ma ne gisuma ko ma ko mm-hmm. man. Mm-hmm. dama am vision. Mm-hmm. sama vision. muy ku doxee nii wala kuy doxee nee wala jigéen bu mel ne wala nee kooku bokkul sama vision. d'accord. comprendre nga man dama vision mm. te sama vision je pense que ne mm. muy maanaam ñeneen ak ñeneen ñu bëri ba si yow mm. xam nga sama vision par rapport ak man ki naan sénégalais bi donc man yeneen li muy wax noonu yëpp dëgg la kii lijjanti ko dañ ko war a lijjante nag parce que say rakk say jarbaat de trucs yooyu dugg si ci milieu bi mais attends je te dis comme li nga wax rakk samay jarbaat man c'est pas que man kay rek sama xarit samay mhm. man mannequin yu nekk si yeneen agence sax ñeneen ak ñeneen mhm. ñëpp. bon ñu bëri <laughs> macha allah samay xarit lañu. d' accord te loolu si gën a xam lu bëri. ok d' <laughs> après yeneen kii yi quoi saay saay ñoom Ousmane Diop ñoom Roger naa leen invité. mais attends lan moo tax nga ne Ousmane Diop ak Roger ay ay saay saay la. ñooñu ay ay. mais c' est des mannequins yow yaay ànd ak ñoom yow yaay ànd ak ah mais attends mais. <laughs> yow man dama ànd ak ko bon. nga ne man dama ànd ak yow nga nekk. Euh, hmm, hmm. <laughs> Facha ñu ñëwaat ci li gas doon wax sànq ça veut dire que moom il essaie de défendre le milieu du truc mais je peux pas accepter aussi muy wax ne gisul lii ak lee ak lale qu'on la réalité ñun ñëpp ci milieu bi lañ ne dañuy essayer def loo xam ne aujourd'hui dina ouvrir les yeux à tout le monde pour ko gars yi xam ne d'accord ça peut avoir ça mhm. mais lii ak lii ak lii parce que gars yi aussi dofuñu lu ñu wax ne milieu bi am na lii ak lii am na ko comme ni nga ko waxee sànq t'as confirmé il y des filles yoo xam ne dañuy ñëw ci milieu bi rien que pour faire du n'importe quoi et après on va dire que les manières. ouais c'est ça qu'on appelle les amateurs. Mm-hmm. je vais prendre l'exemple du milieu de la lutte. Mm -hmm. tu vois il y des lutteurs professionnels. Mm -hmm. et y a les, les amateurs. Mm-hmm. les amateurs c'est ceux qui n'ont pas d'écurie. Mm-hmm. duñ dem entraînement. duñ dañuy toog def nu leen neex après combat am ñu ne dañuy dem bëri. exactement pareil yu yu euh, fort c'est exactement pareil avec le milieu de la mode. Mm il y a les mannequins il y les amateurs. Mm-hmm. je pense que c'est les amateurs. Mm -hmm. qui qui qui sont là pour gâcher le milieu de la mode. mais mm-hmm. pas les mannequins. sans que tu disais à Gas que ñoom agent yi ñoom ñooy yàq euh, doxinu yi. je suis pas d'accord. parce que déjà quand tu es dans une agence. on nous qualifie que les filles. seen démarche c'est l'art. Mhm. c'est les hanches qui bougent. et les garçons c'est l'art. Mhm. donc déjà foofu def nañ différence. Mhm. doxinu góor ak doxinu jigéen. donc ñoom du ñoom. kon boo demee ba gis euh, euh, góor koo xam ne day wicci ci ci mais ça veut dire que jaarul si agence ou bien jàngul jàngul de manière professionnelle. il y a beaucoup de mannequins qu'on voit à des castings ou à des défilés dañuy dox nga wax ne waa c'est quoi ces délires. kii day concurrence ak gel yi ou pas te boo laajtee dañ lay wax ne telle agence la est-ce que si agence boobu la nekk réellement. est-ce mais si la plupart des gens ñu ngi ci ay répété ñu ngi ci ay agence ñu ngi respecter les comme mais respecter répétition nekkul ne d'accord yow chef d'agence boo gisee loolu muy répété muy répété si tu peux pas le corriger nga génne ko sa agence. waaw ça c'est le rôle des agents mais pourquoi ñoom duñ ko def ça veut dire que ñoom joué wuñu seen rôle. Non, mais c'est pas que je ruine un rôle. Peut-être ils ont leur raison aussi. Hein. Moi, la je ne suis, pas, je suis pas chef d'agence, donc hmm. peut-être qu'eux, ils ont leur raison. Si c'était toi, mais En tout cas, moi, ce que je vois dans le milieu, mm -hmm. les chefs d'agence, ils nous différencient de démarche. Mm -hmm. Que filles, seen démarche, c'est les anges et que hmm. les hommes, c'est l'art. donc loolu pour man différence boobu noonu amul leneen lu ko gën a leer. Hmm. donc góor buy dox puy di déhanché wu di lii je pense que loolu sa la quoi. est ce que ñoom manager yi est leen di wutal ay défilé ou autre chose je pas ay marché ou pas. bien sûr bien mm. sûr que dañuy utal ay marché parce que c' est ça aussi leur rôle. Mm-hmm. c' ça leur rôle donc mm-hmm. bu kenn soxlawee ay mannequin contacter agent bi. Mm-hmm. donc lui il va proposer ses mannequins. et en fonction de ces mannequins là le client choisit les mannequins les profils qui l'arrangent. d'accord As As def lay wutal ay défilé. oui oui As. yan yan genre défilé euh, y a beaucoup de casting yoo xamante ne su amee. Mhm. soit il nous dit d'aller là-bas, mm-hmm. ou bien soit il envoie nos photos, mmh. quand on nous sélectionne, il nous contacte directement. Est-ce qu'il y a et beaucoup yoo xam ne moom wutal na leen ko pas. pas pas, pas mais daf leen di wax dem leen casting. oui casting yu bëri su amee moom daf ñuy wax. mais dem casting ça que chercher des marchés pour des mannequins. des fois sax casting day am ñun duñ ko yëg alors que moom envoyé na suñu photo dañuy mm. toog mu woo ñu tel. choisir nañ leen tel défilé tel jour la. Mhm. c' est à telle heure et d' habitude c' est nous accompagne. est ce que nekkul ne yow da ngay faral. Euh, pas du tout pas <laughs> du gas yéen agent yi da ngeen di wutal booy yi ay marché. bon bien sûr bu baax. bien sûr bu baax. tu as cherché des marchés pour tes modèles ou pas. bëri na loolu ana. bëri na waaw. yow boo cherché ay marché yan prix ngay fixé. bon c' est pas ay genre prix bi ngay fixé yow ñaata ngay fayee ko. ñaar hmm? nga fay 200 francs CFA. 200 francs CFA. bu <laughs> ko yëgee 200 francs CFA non non waxin la rek. parce que aujourd'hui euh, parce que aujourd'hui milieu bi dañuy wax ne ñii 5000 ñii 10 000 la ñuy fay. tey exemple man. Hmm. man personnellement gas. Hmm. du ma dugg si yëfu ñàkk fayda bay défilé loo man que mu nekk sama agence wala beneen agence. si des cachets minables. minables tu vois. yow da nga ciy am pourcentage ou pas ñoom ci seen cachet. man exemple man tous les mannequins. Hmm. loolu xëy na jëmmi jamono di nga ko laajte wax la ko wala koo fi éviter wax la ko. Hmm. su ma la koy défilé non du ma faral amul ku may faral. dama ne boo boo boo défilé parce que tey exemple. par hmm. exemple mannequin ñu fay ko temps nga jël si pourcentage bon c'est vrai que yoon la nga jël si pourcentage. mais man je préfère bàyyi la parce que man en parallèle aussi. Euh, si toutefois défilé bu ma la mënta dugal. en parallèle. ma gère backstage. Mm. backstage on paye. donc on paye mais. tu vois euh, ça veut dire c'est pas professionnel. parce que si c'est professionnel. su dee da ngeen ci ci ay contrat da a am sa pourcentage. c'est pas professionnel. Mm-hmm. ma déggoon moo la wax de. ñaa mm-hmm. la si yoon. da nga leen koy may waaw kay voilà donc kon yaa ngi tontu nga ma tamit bokkate. Mm-hmm. parce que tey man je me dis que ne sekk naax man kee boobu. sama rakk la wala sama jarbaat la wala sama doom la wala sama xarit la. ba nga xamante ne bon. du xaalis moom boole moom en fait xaalis moom boole kenn naa war nga si xam dara. donc weccit boobu bon dama ne weccit sax mais xaalis boobu je pense que mu jël ko yóbbu ko. Mm-hmm. faj si soxlam man tam <laughs> ma doylu si sama cachet bi ma am. Mm-hmm. loolu je pense que ça va mais si yoon mooy ma naa sama pourcentage mais man. si mm-hmm. sama maaxu bopp maay fonctionné. mais ba léegi waxoo ma par combien ngay commencé cachet su dee da ngay. wutal c'est pas par combien c'est pas par combien. xam nga. lan ça dépasse dix mille man du ma défilé loo benn mannequin hmm. bon euh, di si am te ay ay leeral hmm. cachet yu minable cachet yu minable man vingt cinq mille sax du mën a défilé loo mannequin pour muy leer hmm. man bu fekkee maa jël mannequin yóbbu parce que des fois da ngay dem ay défilé man nu jël ma pour backstage mais y a des mannequins qui pensent que si organisé bokkuma si loolu tam foog ma leeral ko mannequin yi xam ko y a défilé yoo xamante ne may lu leen di fayee dan may fayee loolu seen défi ñoom la ñu jël personnellement man ñu jël ma personnellement donc yooyu noonu tamit faw ñu koy leeral tamit pour mën kay gën ko xam voilà mais jàppal ne cachet yoo xamante ne c'est des cachets bi naa bi nu proposé ma ko man mhm. ko proposé sama mannequin duma ko proposé beneen mannequin ok yow Facha comme li mu doon wax sànq est-ce que mos nga défilé défilé boo xam ne dañ la fay un cachet boo xam ne c'est bizarre bon je dirais même pas un cachet boo xamante ne c'est bizarre mais mhm. défilé nañ ba pare mhm. ñu wax ñu fay ñu ñuy wax du genre suñu budget dafa jeex. ou bien quelque chose comme ça en fait ça man je vais toujours. Euh, le fustiger voilà mm. du ma ko accepter en fait. parce que je peux pas comprendre tu organises un défilé mm tu payes la location de la salle mm-hmm. tu payes la sonorisation tu payes les lumières tu payes les, tu, tu, de l'argent aux stylistes qui mm-hmm. viennent présenter leur tenue et le plus important c'est les mannequins qui sont sur scène mënoo génnee seen budget nga teg ko de côté ça je peux pas l'accepter ñoom gas la ñoom et pourtant bu ñu lay jël si défilé bi dañ lay wax carrément que y a un comme tel tel tel tel après nga défilé ba pare au final ils na maintenant je diffuse plus en contrat. Mhm. pourquoi doo leen soit tu me tu me tu me un contrat. Mhm. comme nu ko Jida de Outrage Fashion Week di defee. Mhm. elle elle te fait signer un contrat écrit noir sur blanc. nga défilé tu finis et te paye ton argent. mais est-ce que les contrats c'est tous les contrats qui sont. Euh, normal parce que nit ki mën na bind dara en noir et blanc ñëw d' accord wala. oui mais on est on est on est pas stupide en fait. <laughs> la plupart non ah, on a fait les bancs on a <laughs> étudié on n'est pas bête. Mhm. donc on sait lire. Donc si nous joxee contrat mën ne ko lire pou xam ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mm nos agents sont là su ñu gisee contrat avec dara lu ñu si leerul on mhm. peut les appeler ñoom ñu lire ko tu vois. C'est sûr est que agents oh, yi aussi seen bopp yi va. Et pourquoi bopp pas. <laughs> <laughs> ils ont fait les bons jàng mm. <laughs> nañ. en tout cas attends pourquoi vous pensez que mm. slogan qu'on dit mannequin sois belle et tais-toi ça je l'ai toujours combattu. je mm. suis belle, pas d'accord belle et la plupart d'entre vous c'est ça mais parce que yéen a ko wane. non il y a la plupart d'entre vous yoo xam ne dans la tête ça va ici y a des mannequins ñoom nañ solu rek wala dem benn kii de seen plat yooyu frite ñetti frite yooyu filmer ko ak benn kii boo xam ne dañ ciy def ndawal ñu filmer ko dugal statut yaakaar nañu muy toj àdduna pour vous c'est ça la vie quoi. mais ça c'est c'est c'est minime en fait dans le milieu. mais la plupart c'est ça que vous faites. c'est pas la plupart ne dites pas la majorité. je vais dire je vais dire que vous-même. vous ñetti nit def dara ngeen bëgg ko généraliser. parce que on dit mannequin les mannequins les. les mannequins c'est pas tous les ça veut dire que C'est comme quand on dit tous les hommes sont pareils, vous dites que non. Mais c'est exactement Aïe. pareil. Si tous les agents sont pareils. <laughs> Ah, non <laughs> Les hommes là, il faut... tu vois, quand on dit tous les hommes sont pareils, da ngay bañ. Donc moi, je ne pas pareils, Tous les mannequins sont pas pareils Non, du Les mannequins sont pas des filles faciles Non. Pas du tout. Déjà, avant d'être mannequin, on est des femmes. Mhm. On a nos principes, on a nos valeurs, on a nos mœurs. donc am na ñu ñu bëgg am na ñu ñuy bañ. avant de man avant de am na ñu ñuy jomm en fait. on est des des de bon famille. Hmm. tey jii jomm nañ def loo xamante ne dañuy génn ñu naan doomu diw moo def lii bien doomu diw. Ah, avant d'être mannequin hmm. on est des femmes d'abord. Hmm. voilà avant d'être mannequin vous êtes des femmes. c'est ça. <laughs> yow Guess Fashion euh, mannequin yi di def que par exemple des shootings des shootings en nudité des shootings en maillot de bain des trucs comme ça toi tu consommes ça en tant que manager. Non, c'est pas que. Parce qu'on dit qu'au Sénégal, nous sommes, je sais pas, un pays de. Non, c'est pas que suis, je, je, cautionne ça ou pas, mais euh, y, a des, y a des défilés, il mm -hmm. y a des défilés internationaux, bon, si toutefois tu es mannequin, bug, opté dem foofu noonu. Mhm. am na y a des tenues yoo xamante ne tamit bu fekkee mannequin bi bëgg na ko. Mhm. opté. Mhm. c' est normal yenn tenues yi mu parce que benn affaire am na. Mhm. concours international yi ngay gis ne ne mhm. mooy international yi. Mhm. passages yoo xam ne c' est en maillot. en <laughs> tey boo nar a représenté Sénégal si benn concours international que ça soit ban pays lay nekk en Europe ou en Asie wala Amérique. donc tu es obligé loolu. qu'on se dise la Sénégal nga dem représenté yoo xamante ne. tenues mais bokk na si donc je me dis Et qu'est-ce que tu mannequin que non je vais pas faire cela mannequin yi wax ne du ma def lii du ma def lale te pourtant ñoom dañuy rêver dem à l'international ça veut dire ça veut dire que je fais de photos je défile xam nga loolu yëpp question de choix la mm-hmm. question de na mën nga nekk Sénégal mm-hmm. opté na du ma def lii dem fee gis na carrément que ne euh, avec ça tu mm-hmm. peux aller beaucoup plus loin avec ça mais maanaam moyen je veux dire balaa ngay xalaat. <laughs> non ci leneen ak leneen. tu vois yow da ngaa. non leneen leneen ak leneen bon leneen ak leneen je vais pas dire parce que tey nit ki. tu l'as dit kay. non wax ma ko. <laughs> ah tu l'as dit de. ma ko de wax ma ko bul wax. man lu ma wax dafa leer man si cadre maillot de bain nga wax. de ci cadre maillot de bain boobu noonu man si cadre maillot de bain boobu. ça veut dire que actuellement tu conseilles aux mannequins de faire euh, tout ce que le milieu leur demande. à l'international tout ce que le milieu leur demande bon en international c'est le positif. Hmm. mu leer. c'est le positif en fait. Mm. voilà pour mu leer pour c'est le positif de. mais pourquoi tu appuies sur ça. yow tey bon mm. man sama rôle mooy mannequin yi mu jigéen comme góor. Mm. sama role mooy conseiller leen. bon wax leen loo xamante ne tamit euh, mën na leen yóbbu fu sori en fait. Mm-hmm. que ça soit au niveau national international donc man. Mm-hmm. sama bëgg-bëgg que ça soit sama mannequin agence wala beneen mannequin. Mm-hmm. sama bëgg-bëgg mooy mu dem. au au niveau international en fait. Mm-hmm. donc tey niveau international comme li nga wax nii. main mm-hmm. euh, de bain mën na ko si bañ parce que y a des passages yoo xamante noonu lay demee. Mm-hmm. mais tamit main de bain taxu nit ki bon. main de bain taxu nit ki bon. ça c'est la vérité tey exemple. Euh, www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube. Facebook. quelques années après nii ñu ngi gis ne Miss gars yi di ñuy wax Miss quoi bu ñu paree seen couronnement la plupart ci ay problème la ñuy fustiger. Mhm. que gars yi wax nañ ma lii boo gagné lii ak lii ak lii te ñoom bu ñu paree ci seen kii duñu gis dara ci lu ñu gagné bu ñu gisee les pays. comme la Côte d'Ivoire et tout ñoom macha allah quoi dañuy respecter les miss et tout tu penses que ça c'est manque de professionnalisme ou quoi. je vais dire un peu sur ça. Mm-hmm. je me dis que manque de professionnalisme un peu peut-être bien. moo si nekk parce que booy xool Miss Sénégal avant. Mm -hmm. et de nos jours. Mm-hmm. c'est diamétralement opposé. je ne peux pas aussi cautionner des mannequins ou bien des miss je vais dire mhm. euh, porter des talons avec bu ñambi quoi bon exemple tey si toutefois nga dem si si compétition internationale yi mais si talon bu pointu bu gudd pointu bu gudd gudd gudd moom la ñuy sol tu vois la Miss Côte d'Ivoire cette année ah mais c'est magnifique elle, est magnifique, donc peut-être bien que comité Miss euh, Sénégal mhm. nañu gën a liggéey davantage par rapport à primo euh, sélection Messi mm, secondo tamit nu xool carrément tamit vraiment sur leur euh, je veux dire style vestimentaire ah parce que style vestimentaire boo ko waxee mm-hmm. euh, ba yëre daal lépp moo ngi si mm-hmm. donc des fois tu vois des Messi yoo xamante ne des passages bon c'est un peu mooy loolu ko donc war nañ si gën a gën a gën a gën liggéey par rapport à tout parce que tamit c'est une nation. Ouais. voilà Miss Sénégal euh, Sénégal est représenté. tey Sénégal macha allah euh, yàlla def si ñun lu doy waar loo xamante ne tey exemple boo demee benn pays africain. Mm-hmm. Euh, exemple bu ñu demee benn pays africain sax mm-hmm. comme sénégalais du bokk. ak beneen nationalité. donc ñun dañu respecter donc il mm-hmm. faut qu'on sa fasse respecter aussi. par rapport à divers secteurs donc. loolu c'est très important. que ça soit Miss que ça soit mannequin que ça soit chef d'agence wala lii donc. nanu euh, gën a professionnel si lu ñuy def. Mm. c'est c'est très important. c'est très important ça veut dire aujourd'hui même euh, leur communication ça reste aussi. nu ñuy communiquer bon c'est tu faible, vois tu vois des miss yoo xamante ne fa dëgg yàlla man su ma koy seetaan des fois par rapport à avant da ngay da ngay da ngay da ngay désolé quoi. Voilà. bon pour être honnête. Mm -hmm. c'est pas que damay sànni ay trac wala genre. mais il y a beaucoup de choses yoo xamante ne si biir euh, mm-hmm. Miss Sénégal comité bi war na ko xoolaat bu baax. Mm-hmm. muy si muy si. seen seen seen seen seen speech lu ñuy waxee lu ñuy doxee tu vois euh, la beauté aussi c'est très important ouais. voilà depuis Ndeye Astou Sall on a plus de Miss ouais, ah, normale hein. bon ouais. c'est pas pour jeter des tracts mais Miss Sénégal ce n'est plus comme avant donc mm -hmm. je pense que jot na mm-hmm. comité bi xoolaat yëf yi xoolaat yëf yi xoolaat mbir yi parce que tamit Miss boobu après Sénégal lay dem représenté. Mhm. te buy dem représenté Sénégal tey y' a d' autres pays africains yu fay nekk y' a pays américains y' a des pays asiatiques wala et tout donc war nañu sélectionner lu baax. Mhm. lu baax c'est-à-dire euh, côté speech. Mhm. ok euh, de préférence. bu dee mën nañ ko si yokk. Miss bi dégg anglais. de préférence. c'est très normal daa war a voilà daa war a tu vois bien vrai que des fois boo demee y a des questions yoo xam ne bu la koy posé mën na nekk en français via sa langue ba nga mm-hmm. kii et mais. non la bi kii sélective en fait. plus lay nekk sélective autant pour moi ça doit être une sélection sélective donc euh, war na war na war nañ si changer yu bëri daal yu quoi ci parce que. doy na waar moom. bon waaw gis moom mi suñu gis moom ah. waaw Miss Sénégal surtout avec Miss Sénégal nouvelle vision bu nu wax. Mm-hmm. mu Sénégal nouvelle vision tey boo ko déggee mm-hmm. war na indi une autre vision en fait mm-hmm. war nekk benn vision boo xamante ne amaana du bokk comme benn benn mi Sénégal bu njëkk bu fi amoon mm-hmm. donc mën na indi leneen loo xamante ne c'est beaucoup plus avantageux si mii si si si mooy loolu daal nañu yokk affaire bi. na na professionnel. espérons espérons parce que depuis Ambroise paix à son moom bu defoon mise quoi après da ngay gis ne wax nañ ne jox nañ mise ba otom def na lii ak lii. Mhm. et depuis un certain temps presque depuis Ndeye Astou euh, ñu commencé di gis ay problème mhm. waxoon nañ ma lii joxuñ ma ko ba mise bi mujj aussi gis nañ temps yi mu ngi def ay sorties di wax ne. dañ ko waxoon yëpp joxuñ ko te moom dafa doon sacrifié wu pour kii mhm. mais. euh, la façon de parler. parce que miss yi boo leen gisee actuellement lu ñuy communiquer. c'est tellement tellement nañ ma baal médiocre qu'on se dit la réalité. miss boo xam ne mënoo toll euh, sol ay salon yoo xam ne point yi lay nekk. parce que seen photo bi ma publier Facebook. ñu jël ma ci su wax ne ma woon def lii. le gars là qui se trouve en Italie j'ai oublié son nom bokk ci comité bi. ma ne si je dois parler. Ouais. parce que ñun xamuñu lu nekk waaye boo leen jëlee même le photographe wax naa leen ne photographe bi mm. photo bi muy publier c'est pas normal parce que mm. les pixels ça ça se pas vous avez dit Miss mm-hmm. ah, gis yeneen Miss yi mm-hmm. les pays environnants ñuy def ay Miss yoo xam ne macha allah yu mm-hmm. rafet ñoom bu nu ñu wax nga kontaan suñu wax anglais nga kontaan suñuy dox aussi macha allah ñun suñu Sénégal moom mooy loolu quoi mooy professionnalisme moo si xaw a nekk et j'espère bien que ñoom ñoom xam na na loolu ba ñoo ngi si ñoo ngi ci ñoo ngi si peut-être bien travailler en fait bàyyi xel parce que mooy lu ma wax tantôt léegi nii rek donc na gën a professionnaliser affaire yi gën a aussi tamit sélectionner en fait mm-hmm. par rapport à la Miss Miss Sénégal ah du Miss Dakar du Miss lii du Miss la Miss Sénégal c'est le Sénégal ah, une nation Euh, foog ñu foog ñu sélectionner vraiment une miss mm. comme avant nu mu doon amee si sama xalaat bu gàtt ah. loolu noonu dina tax aussi tamit bon dina dina dina dina gën kii voilà espérons que waa comité Miss Sénégal Nouvelle Vision dinañ ci mm. jël ay leçons espérons bien parce que ñun li ñu soxla ne que ngeen fournir ñu ay mannequin ay miss yoo xam ne macha allah quoi dinañ wax ne waaw ça c'est le Sénégal. parce que am na ay xale yu bëri yoo xam ne bëgg nañ participer ci concours bi. Mhm. waaye dañ lay wax ne non je vais pas participer parce que parce que mhm. ñoom li ñu lay wax ak lu ñuy kii du benn. Mhm. essayez essayez parce que nous tous on veut bon bëgg nañ quoi affaire bi jëm ci kanam. mais nii nii nii ça va pas du tout constitue la réalité suñu waxantee dëgg rek ça va pas. mënuñu boo xam ne gagné après moom muy jooytu ne gars yi defuñu lii ak lee ak lale. xamuñu ñun nag on est là peut-être euh, Apoba ji su fi nekkoon peut-être il va pouvoir nous qui nous expliquer mm. malheureusement il n'est plus là mm. et les autres aussi on peut pas les avoir normalement pour que ñoom ñu toog expliquer ñu lu ci ne mm. xaw ma na Amina Badiane su dee t'as le temps aussi pourquoi pas on va être en face tu vas nous expliquer c'est quoi les soucis pourquoi pas on va vous faire en qui en duo avec la miss aussi sortante et chaque personne dina expliquer su dee ñoom nangu nañ ko man moom loolu dina ma neex quoi en fait dina ma neex trop Amina toog la miss toog ñu waxtaan quoi ça va être super Gas aussi on va bon temps bi mu commencé di ñu bàyyi la rek nga wax ñu say dernier mot. bon comme ça que j'ai j'ai débuté je tiens à vous remercier de l'invitation et tout. Euh, Sénégal7.com machallah. Mm -hmm. voilà en tout cas je vous souhaite le meilleur par rapport euh, à tout. Merci. surtout yow du. ñoo fay solo nga ma lool mais borom baax nga tu vois. donc loolu la et aussi je je tiens à, à remercier les mannequins de Fashion Model Agency comme ni ma koy defee chaque jour. parce que te je peux dire que gas ku mu doon moom la certes. Mm-hmm. mais tey de par mes mannequins peut-être peut-être mm-hmm. bien. Mm-hmm. ñoo ñoo tax xëy na gas toll mu toll. voilà je vais pas voilà pour ne pas le dire. donc dama koy wax tey c'est grâce à tous mes mannequins. que ça soit les anciens que les que les nouveaux. donc amaana peut-être bien na tax. ma yegg sa fi ma yegg bien vrai que gas ça existe depuis très longtemps dans le milieu de donc. Mm-hmm. loolu la voilà di njaax mannequin yi tamit euh, ñu gën a góorgóorlu gën a fonk seen bopp. Mm-hmm. lu mannequin bee bañ. Mm-hmm. naka mannequin bi bañ. si toutefois mu am soudure boobu entre ñoom. donc je pense que tey tey tey tey tey dina gën a neex si mannequin yëpp. te tey de nos jours dañoo gis que mannequin bi day bañ nii keneen ki nangu ko donc loolu mannequin yi seen biir man exemple man euh, sama mannequin bu ñëwee wax ma cachet temps temps temps temps ñaata passage temps ma naan bul dem. Mhm. man su ma leen lijjanti défilé cachet yi day jaar yoon. Mhm. donc man souvent loolu lay wax mannequin yi nañu gëm seen bopp surtout. Mhm. mu jigéen comme góor nañu gëm seen bopp. tous les mannequins nag. nañu gëm seen bopp bu leen kenn dugal si yëfu ñàkk fayda. si la tey si fois nga gëm sa bopp. li ngay def nga mën ko. Mhm. non doo kenn du la téye da ngay dem ah. exactement la preuve en est allah da ngay dem. Mhm. kenn du la téye. macha allah de la fin fin. mot de la fin fin <laughs> merci à toi et yaakaar naa am na événement booy préparé aussi on va essayer euh, peut-être boo demee ba teg ko normalement. waaw euh, bon tu a a mhm. y' a y' beaucoup d' événements macha allah euh, yu ñu bon y' a y' événement boo xamante ne. côté mode bi maa koy piloté c'est le 30 au phare des Mamelles. Mm-hmm. à part ça bon il y a un grand événement. qui se prépare pour le moment. du du <laughs> tu vois mais lu rëy la macha je pense que voilà. tout le monde va en parce que du lu donc. Euh, bëggumoon ñu xam en fait. qui est derrière tu vois. super ñoom Fili ak Ramle dañ la daw léegi. Fili ak Ramle ñooñu ñooñu loolu dëgg la daw loolu ko mu <laughs> di koy wax. Fili ak Ramle da ngeen a daw. gis nga gis nga Fili ak Ramle. Ah, je te dis ah. non c'était une entre parenthèse rek. <laughs> Fili ak Ramle boobu nga wax. en fait euh, dañu nekk. man dama en fait dama fier si ñoom ah. macha allah macha allah dama fier si ñoom. parce que na entreprise am léegi. voilà dama fier si ñoom euh, jox nañ ma ca. Mm-hmm. Euh, dañ may dan may dañ may dañ may kii. dañ lay fay dañ lay jox pas sax mais. Mm. dañu reconnaissant en fait. exemple si ñoom laa jël bare baax yan man kay yëpp mais yaa tudd fii la xaram ne moo tax may wax en fait dañoo reconnaissante envers man jox ma respect jox ma cër donc là si tu me dis que dañ ma daw <laughs> dam koy jaaxal <laughs> elles sont magnifiques macha allah magnifique voilà, exactement voilà. merci beaucoup à Gas Fashion c'était un plaisir quand même de t'accueillir ici et comme j'ai l'habitude de le dire on espère bien que ça va pas être la dernière fois. Ah, événement yi di dinañ ci gën waxtaan. incha allah waaw loolu moom bëgg naa yaakaar nañ ne Sénégal 7 dina ci Sénégal 7 moom dafa mel ni désormais tous tous les événements bu gas nekk. wala gas piloté wala gas ah, je pense que Sénégal set moom dina ñëw. Uh-huh. voilà euh, jàpp si bu jàpp si bu baax surtout merci beaucoup Gas Fashion. en tout cas téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information. en temps réel. www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. suivez-nous ñu ci yow euh, comme li ma doon wax ak gas sànq tout à l'heure ça veut dire que Miss Sénégal pour toi lan mooy yaay manquement mi Sénégal. déjà comme ni ko je mhm. pense que communauté bi organisation ça manque de professionnalisme mm -hmm. déjà pour commencer mhm. en plus la façon dont ils fassent euh, la sélection des miss mm -hmm. moi mhm. je suis pas d'accord mhm. il faut revoir les critères parce que c'est très important Certes. une miss c'est c'est la représentante fait de tout un pays donc Miss Sénégal on doit revoir les critères que ça soit la taille la peau les niveaux d'études surtout parce que mënuma concevoir Miss Sénégal bu déggul français en fait même si c'est pas notre langue maternelle. c'est le, le français, minimum mais c'est le minimum en c'est le minimum parce que Miss bi dafa war a dem représenter le Sénégal à l'extérieur donc il faut que Miss bi am benn niveau d'étude bi mën a exprimer de façon normale. Mm. comme ça on sera au moins fier de notre Miss. aussi. c'est ça comme li ma leen wax elle doit être élégante. Euh, loolu moom day associé yoroon na ko. surtout nu ko gas je peux pas concevoir une miss qui sait pas marcher sur les talons <laughs> <laughs> te mooy wax ñu justifié wu wax ne photo bi ma publier sur Facebook c'était loolu photo de groupe la woon fekkoon na ñoom ñu sol seen talon pointu def seen kii yu dañoo ñëwoon noonu rek di photo ma c'est pas une raison parce que da di publier la photo en fait et c'est sur les réseaux sociaux ñëpp a koy gis c'est fou à la fin une miss elle doit vraiment tout le temps même bu ñu la bettee photo la sax miss dafa war normal surtout <laughs> <laughs> exactement ñu ngi ñëwaat ci yow ñu dalal suñu beneen invité bi euh, macha allah xaw ma kii euh, doomu Senghor la je sais pas Marie Senghor c'est un plaisir de l'accueillir ici bonsoir vous allez bien yëkkatil baat bi xanaa ah? ñeme woo wax ñeme ñeme nga wax merci quand d'avoir accepté l'invitation bàyyi ñu bàyyi la rek nga nuyoog teg avec euh, les téléspectateurs waaw maa merci beaucoup merci pas de <laughs> pas de quoi Marie mën nga ñu wax ba pourquoi tu as choisi d'être mannequin et fan nga ko commencé waaw man sa mannequinat donc maa ngi commencé depuis le Maroc depuis Maroc d'accord c'était le mois d'avril 2019 euh, 2019 c'est récent d'accord Et depuis lors, tu avais une agence là-bas ou pas Oui. Tu avais une agence là-bas. Mmh. D'accord. Et tu as fait des défilés aussi Oui. Tu as fait des défilés Oui, je peux mmh. dire que je suis mannequin international pour mannequin le moment. Mannequin international pour le moment, international. Les mannequins internationaux, je ne sais pas, est-ce que nous comprenons c'est quoi le mot international ou bien Ok. Euh, yo, qu'est-ce qui milieu, surtout le milieu euh, de la mode sénégalaise Peut-être même si tu peut-être tu as des échos. waaw fii au niveau de Dakar. Mhm. je peux dire que le Sénégal. Mhm. Euh, mannequinat bi moom c'est un peu bizarre. c'est un peu bizarre parce que dafa bëri ay faux mannequin en fait. fii Dakar. Mm, lan ngay wax faux mannequin c'est quoi faux mannequin euh, boo ko déggee. Mhm. en réalité euh, li la tax a jóg. da koy sàmm. parce que mënuma. yëkkatil sa baat. yëkkati sa baat yëkkati <laughs> da nga yëkkati quoi. li la tax a jóg danga koy sàmm. Mhm. parce que mënumaa comprendre nga ni mannequin nga. Mhm. et en réalité. Mhm. doo doxee ni mannequin di doxee. doo comportoo ni mannequin di comportee. donc je peux dire que dafa bëri ay faux mannequin ci milieu Sénégal. d' accord doo doxee ni mannequin di doxee doo comporté wu ni mannequin di comporté c'est quoi pour toi lan mooy comportement mannequin wala doxinu mannequin. comportement mannequin ki wax na ko total Facha mm-hmm. mannequin boo nee mannequin la mm-hmm. déjà dëkkal nañ la foo dëkkul mm-hmm. donc sa image dootu rafet li tax muy rafet nag yow yaa koy liggéey naka nga koy liggéeyee da ngay xam li la tax a jóg xam lan moo la dugal ci milieu bi en réalité mais munoo ne mannequin la euh, na ma yàlla baal ñu lay gis ci yenn détails yi di la gis ci yenn milieu yi mannequin je pense bien que boo défilé ba pare. Mhm. li la war mooy ñibbil sa kër. Mhm. mais nekk mannequin défilé jeex nga dugg ci oto jàmbur dem. Mhm. passer la nuit foofu wala quelque temps ñibbi. pour lan. ana sa dignité mais vous dites que ça c'est du bon temps c'est loolu ngeen di wax. ñoom loolu la ñuy wax. non bu ñuy wax dañuy wax les mannequins. waaw dañuy wax fait partie. d'accord ba tey. mais man je ka que je ne le faire. c'est sûr. parce que xam naa li ma tax a jóg. lan moo la tax a jóg. dama ko bëgg. Mm-hmm. sama passion la. Mm-hmm. donc am na yoo xamante ne duma ko ci dund. est-ce que la passion ne va pas du dem ba nekk kii quoi en fait nan la koy wax toxique. ça veut dire la passion de réussir la passion d'être connu dans le milieu du truc loolu moo leen di dugal ci yeneen affaires yi de. je peux dire que loolu waru cee mën a dugal kenn parce que boo nee mannequin nga rek tu es déjà connu. mais t'as dit passion. waaw ba tey. Mm-hmm. <laughs> bàyyi ma dégg. <laughs> déet allez je t'écoute. Euh, boo nee mannequin nga rek. tu es mm-hmm. déjà connu. donc am na yenn yoo xamante ne yenn détails yoo xamante ne je pense bien que waratu la. non c'est pas que une fois tu as dit que tu es mannequin on t'a déjà connu par exemple aujourd'hui on peut connaître Facha dans les télés di ko gis des trucs. Mm-hmm. yow nag tu rêves d'être comme cette personne. est-ce que ça va pas te permettre de voir un certain gars dire que d'accord il faut que ma am liggéeyam am ko fait. côté boobu dinaa ci ñëw. Mm-hmm. xam nga li tax. Mm-hmm. Euh, je suis sénégalaise. Mm-hmm. fii laa màggee. bi may dem Maroc boobu duma mannequin. et pourtant j'avais ici l'opportunité d'être mannequin. mais pourquoi nekkuma ko fii Sénégal. parce que en ce moment yooyu. maa ngi ci doon dégg des détails yoo xamante ni. c'est bizarre. des détails comme. waaw euh, pour nga nekk mannequin. il faut que nga def. Euh, lii ak lii ak lii ak lii donc comme quoi ay promotion canapé promotion du donc euh, ma ne loolu nag fait là-bas on te l'a pas proposé là-bas c'est sûr et certain hmm. le milieu de la mode là-bas et le milieu ici ban a évolué pour le Maroc c'est plus évolué que ici hmm. Hmm. et leur cassé de là-bas ça varie entre combien combien en tout cas c'est pas mal c'est pas mal En tout cas, c'est pas mal, mais on veut savoir en fait. On veut savoir. On te paye Je l'ai dit tout à l'heure. Combien? fukki dërëm. ah foofu man dañ may fay cent francs. c'est pas pareil on parle de la mode et du défilé et tout parce que. aussi peut-être am na ñoo xam ne comme Facha tey peut-être mun na am envie partir là-bas yaa ko jiitu fa yow ci sa bopp yaa ko mun a gind quoi ak ñeneen ñi lay seetaan. foofu la ñuy waxee voilà boo déggee ma ne la c'est pas mal. Mhm. parce que je ne peux pas te dire que cachet bi ci lii la. non non cachet bi mun na mais à peu près. à peu près. est-ce que ça peut dépasser dix mille vingt mille cinquante soixante. ah quand même Dubaï ma waay. ah c'est ça qu'on voit au Sénégal il faut qu'on ah. demande quand même parce que yaa fa ne ñun xamuñu. voilà au Maroc. Mhm. man mosuma fa défilé boo xamante ne fay nañ ma sax cinquante mille. c'est plus de ça. waaw. Ah, et les promotions canapé constituent parce qu'on a vu que la plupart d'entre vous iPhone la ñuy yore des trucs comme ça te mannequin yi nag naa ko di la réalité liggéeyu leen liggéey boo xam ne war ngeen mën a yor iPhone surtout les euh, iPhone yi doog a génn. man sama iPhone man maa ko jënd. ah da nga am iPhone. waaw waaw ah, d'accord. man maa ko jënd. ah ko jënd sa bopp maa ko jëndal sa bopp à combien. à quatre cent mille francs. quatre cent euh, mu ne. quatre <laughs> entendu. waaw oui. 400000 100000 200 300 400000 presque mooy 500000 boo tegoon 500 mooy 2 millions quoi. Oh oui mais maa ngi ko liggéey. yaa ko liggéey. waaw ci mannequinat bi. non j'ai d'autres activités à faire. ah t'as d'autres activités d'accord des activités personnelles. personnelles qui t'appartient ou bien da ngay liggéeyal ak nit ou pas. qui m'appartient. ah qui t'appartient d'accord kon ça veut man les mannequins euh, am na ñoo xam ne seen bopp yi xaw nañ normal tuuti. ñu ngi investir. mais pourquoi pas bien sûr. parce que mannequin aussi nekkul que ne yow talon bi rek. ça veut dire sa activité ça te rapporte beaucoup de choses ah. alhamdulilah euh, mille pour le mettre dans euh, ci portable. et maa ngi ko jënd sama jour anniversaire. waaw. ok ak yeneen dépenses kenn kenn kenn proposé wu la autre chose benn gaan ñëwul comme ñoom Abdou yor xaalis ñëw wax la ne tiens y na a pas c'est sûr. mënul ñàkk. mënul ah mënul ñàkk ça veut dire yaa mënul mais. Mm-hmm. man basé wu ma ci nit. basé woo ci nit mais da ngay encaissé. jamais parce que lu ma waay mën a may tey rek mën naa ko liggéey. Mm. mën nga ko liggéey lu la waay mën a may. ça veut dire Abdou su la waroon may par exemple cinquante millions tu peux le travailler ça va tu tu t'en parce que may ma ko taxaw sama xef yi je préfère travailler dur. kon di nga bëgg wax ne Abdou daa bëgg a taxaw sa oh, xef yi. ma lool de. <laughs> waxuma loolu <laughs> d'accord et c'est seulement au Maroc que tu as pu défiler ou bien il y a d'autres pays que tu as euh, non en fait tout à l'heure tu m'as parlé que ñu bëri dañuy naan mhm. je suis mannequin international en fait bu ñu nee international mhm. en fait par exemple man ma nekk sénégalaise nii mhm. mosuma génn Dakar pour défiler donc je suis mannequin national mais une fois que par exemple ma dem Mali bi gën a jege c'est international Hmm. donc peut-être ñu bëri comprendre wuñ ko national et interne quoi. voilà euh, def na nag dëkk yu bëri. def na dëkk yu bëri macha allah quoi hmm. ci deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt et un quoi. voilà c'est ça. ok d'accord c'était pas juste le Maroc. et ça t'a rapporté. de la connaissance et tout. Mm -hmm. j'ai vu que aussi avec un grand styliste macha allah. Ah papa Alfadi. Alfadi. c'était le 21 novembre passé. d'accord Ah, super. C'est euh, le grand styliste de Niger. Je le mhm. salue au passage. Tu le salues au passage. Ça, c'était euh, où euh, Fashion, Week. Week. Tata Donazara. Je le salue au passage. Okay. C'est une vraiment tata merveilleuse. Hmm, <laughs> <laughs> <laughs> D'accord. Ça aussi, c'était où Ça Fashion Week. D'accord. Super. lii c'était Covid-19 parce que ay masque laay gis ne. oui. ok c'est super la création là qu'on voit quelle création photo ba dem na de daa mel ni lii nii. Ah, lii euh, moom. Mhm. en tout cas toni la bu bu bu doy waar. lii kay doy waar parce que li ngay gis ci sama épaule noonu. Mhm. je ne pas nan lañ koy waxe ay layu. <laughs> ay layu lañ la tegal noonu. ay layu lañ ma tegal noonu. a refa nga na séeréer yi taleel nam. ndap comment. Oh, xaw ma de nuñ koy waxee. ci séeréer yow dégg nga fa nga dégg séeréer ça c'était euh, shooting la woon ah. waa shooting la woon ak benn agence donc seen logo ngay gis noonu. mais yow da ngaa diw fii quelque chose ou pas dañ la diwal quelque chose. pour nga niin hmm, dañ la doon jaay. photo bi moo ko laaj. d'accord photo bi <laughs> moo ko doon après itam bëgg nañ gis les photos de la cuisine lébu euh, lébu yi xam ne ñu ñuy xeex fii ci biir plateau bi te pourtant mënuñ ci ñun dara. <laughs> Facha, tu peux nous expliquer un peu ces photos aussi, parce que ça, c'est euh, ces photos. Abdou, qu'est-ce qu'on doit dire de ces photos <laughs> Alors ça, c'était c'est un des thèmes de mon book. D'accord. Je suis en train de faire mon book professionnel et mm -hmm. ça, c'était le thème bureautique de mon book. Ok, d'accord, le thème bureautique. Mhm. C'est une photo prise par euh, Paul. Paul ah, le grand Paul allemand. C'est ça. D'accord, c'est super. Et ça, c'est quoi Ça, c'est une photo prise par Pedro. Mhm. Donc, euh, c'était un style afro. D'accord. Ouais. Et la je l'ai créée moi-même. La tenue, tu l'as créée toi-même Ok, d'accord. Et c'était au Grand Théâtre c'était la Grande Nuit des As. C'est le défilé qu'on fait chaque année à l'agence. Ah, avec l'As des As. D'accord. c'est la même que l'autre. J'adore l'afro. <laughs> Ça, et ça, ça c'est prise par euh, Amidou de All Prod. D'accord. Et pourquoi tu as, as, fait ces genres de shooting Pourquoi tu fais ces trucs-là Tout ça, c'est des photos de, de mon book. Hein. C'est pour mmh. mon hmm. book professionnel. Et Parce tu... que moi, je ne vise pas à faire... Euh, une carrière juste nationale. Je vise l'international. L'international. Oui. Et je suis plus modèle photo que mannequin podium. Donc, c'est pourquoi je suis plus focalisée sur les photos. Et pourquoi tu regardes derrière ou bien bon, tu montres les gens que ça va bon, as, Ouais, Je, regarde mes, grands-parents, les bouts qui m'ont accompagné. Ah. ah. sur la photo, je, je montre. Euh, travail de maman, quoi. <laughs> Maman a bien ça travaillé aussi, aussi. C'est le même thème. C'est le même thème. Jaune, travail de maman derrière. Est-ce que ça aussi, c'est pas que vous charmez les pour que bon, ça va, que nous top un cas, on ça va. C'est la même chose avec cette photo ça aussi. Ça n'a rien à voir avec les gars. Attends, mais tout cas. Mais est-ce que ça, si tu le publies sur le net, des trucs, gars, ils me bombardent avec des messages qui souffrent quand même. Mais je ne suis de répondre aux, aux ah messages. Mm. C'est normal que les mm-hmm. hommes me côtoient. Mmh. Mais c'est pas parce que les hommes me côtoient que je dois répondre forcément. Mmh. Ouais. Ça, c'est bureautique sensuel. Ngay xaw a lire te lire. <laughs> C'était le thème. C'était le thème. Ouais. D'accord. J'adore les photos, c'est magnifique, c'est mmh. exceptionnel. Toi aussi, tu peux. Euh, euh, euh actuellement, t'as quel âge? Moi? Mm. Devine. Non, je peux pas deviner. <laughs> vingt et quelques vingt et quelques ans cinq ans toi. vingt six vingt six. kon yaa ko mag. yéen a magan et vous pensez que actuellement li des ci seen âge bi peut-être je sais pas d'ici trente trente vous pouvez réaliser quelque chose dans le milieu. ben déjà moi je pense que ce que je voulais dans le milieu je l'ai déjà obtenu. tu l'as déjà obtenu c'est c'est c'est l'ouverture la mm. connaissance. et tout maintenant après le reste c'est de mettre en place les projets d'ailleurs je dois lancer ma marque de lingerie. <laughs> donc <laughs> je vais le faire après le màggal de Touba incha allah. lingerie nga wax de. <laughs> oui lingerie kañ ngay te dirai la date. il faut me dire Abdou on va partir ay les photos on va assister même. et toi aussi envers l'âge est-ce que ça joue mais yow moom macha allah actuellement yor nga sa entreprise bu bopp yaa ngi liggéey sa côté du truc yaa ngi. am nga loo teg ko en fait am na loo xam ne ñoom nga bokkal liggéey bi aussi tu penses que d'ici quelques années aussi tu vas pouvoir euh, bon peut-être euh, agrandir les choses et tout. Inch'Allah. Mmh. C'est quoi ton plus grand rêve sur ça? Euh, mon plus grand rêve. jokkal mm-hmm. baat bi. activité bi ma nekk di def nii moom. Mm-hmm. am naa beneen activité bu ma xalaat. boo xalaat Parce que moi, je sais bien qu'au niveau de mannequinat, mm j'aime pas trop long de carrière en fait. Dans le mannequinat. limité quoi. Parce que je peux dire le mannequinat, boo ci bëggee aussi. Mm-hmm. avenir bu yàgg. Mm-hmm. doo ci yàgg. doo ci yàgg. boo ci bëggee avenir bu yàgg doo ci yàgg. mais boo si yàggul noo ci amee avenir bu mën nga ci am avenir. Hmm. parce que buñ la nee mannequin nga. tu as la possibilité de de de tous les portes. Ah, d'accord kon yéen di ñëw ci biir million bi rien que pour ouvrir les portes après bàyyiwaat milieu bi. dem seen c'est pas le parce que tey jii styliste bi sax. Hmm. mais mannequin la. Hmm. waaw. day te styliste bi styliste la. styliste la mais mën na sol tenue. Hmm. gis nañ ko fi bataay. nekk istimé mun na sol mais nekkul son sa tenue di défilé. gis nañ ko fi mais du rëlam quoi en fait. waaw mais ba tey. Hmm. lu mën a nekk la. Hmm. donc c' était ça. c' était ça en gros. <laughs> te yow da ngay valider lu mu wax. Bon, les, les, en général, ils mettent leur tenue mmh. à mhm. la fin des défilés. Pour accompagner les mannequins. Mmh, et compléter, finale. Oui, sortie finale et compléter la collection. Mm, d'accord. C'est ça. aussi, comme le moi, peut-être venir au milieu depuis quelque temps, rien que pour porter ou quoi, après un milieu. Non, non, non, non, non. Moi, toutes mes activités, c'est en rapport avec le milieu. Déjà, mm-hmm. la, la, la ligne de lingerie que je vais lancer, c'est par rapport au milieu. Après ça, je veux aussi lancer une ligne de vêtements, c'est par rapport au milieu. Donc, tout ce que je fais, ça a rapport avec la mode. mais c'est toi qui vas faire les shoots, c'est toi qui vas te porter comme modèle ou bien il y aura d'autres personnes Non, je vais pas me porter comme modèle. Mm-hmm. Il y aura d'autres euh, mm-hmm. personnes que ou bien même euh, je vais prendre les mannequins les mm. mannequins immobiles là mm-hmm. qu'on a l'habitude de voir dans les non, non, dans non, les boutiques et tout. on va pas, on pour, va pas. <laughs> pour faire, euh... Mm-hmm, mm-hmm, on ne veut pas de ça. Aïe. <laughs> On ne veut pas de ça parce que ça va pas Euh, un conseil quoi ça va pas euh, montrer carrément les choses ouais, mais il faut chercher au mannequin ou bien toi-même tu te prends après tu te prends tu tu euh, lingerie fille moi mais ça c'est pas que pour les filles que je vends ah il y a lingerie garçon ah oui je vends pour tout le monde après on prend Abdou pour être mannequin Abdou pour être mannequin il faut prendre <laughs> il faut prendre Abdou hein mais bon c'était un plaisir parce que temps bi nag euh, xoj nañu carrément ni euh, Facha c'était un plaisir ñu bàyyi la rek nga wax say dernier mot après mooy loolu wax ñu say projet à venir aussi. bon comme je te l'ai dit il y que je dois lancer la lingerie et mmh. les vêtements. Mm-hmm. aussi euh, je voudrais bien ouvrir une agence. Mmh. mais c'est pas pour maintenant. c'est pas pour maintenant agence dina bari Sénégal je suis pas encore prête déjà parce mm-hmm. que voilà pour pour man ubbi agence. Mm-hmm. man kay di ñëw inscrire fay. def formation après c'est pas c'est pas c'est pas professionnel pour moi donc pour man agence yi war nañu góorgóorlu ba am mhm. carte boo xamante ne ni tey jii mannequin bu fa génnee mhm. dina am diplôme boo xam ça sera reconnu par l'État Surtout. Parce que le mannequinat doit être reconnu par le ministère de la Culture. Mm -hmm. C'est de la culture. Donc pour man tey jii agence yi war nañu góorgóorlu ci loolu. Mhm. donc man tey jii bu ma demee bay ubbi agence bëgg naa mu nekk agence boo xam sa sera très professionnel et reconnu mhm. mannequin bu fa génne di nga am diplôme reconnu par l' état mhm. di nga am sa book fii mannequin yi fi am book bëriwul donc pour man loolu loolu rek mooy mooy mooy euh, lu manqué ci milieu bi en fait professionnalisme boobu moo fi manqué hmm. tey di casting yi normalement on devait faire ça sur book man quand bu ñëw te amoo book professionnel doo def casting bi doo passé casting mais on voit les mannequins les amateurs a ñëw ci casting bi doo xam xàmmee kuy mannequin ku dul mannequin day mën ni sabar bu tas doo comprendre ah, bëri na ci nag donc voilà mooy loolu hmm, hmm. <laughs> quoi le milieu <laughs> manque de professionnalisme c'est ça et je te merci aux téléspectateurs de Sénégal7.com. Mm, merci à toi aussi ma chérie. Mm. donc voilà. et euh, Abdou doo ko def bisou. <laughs> <laughs> Abdou, je te fais un gros bisou. Euh, et voilà. je salue aussi As, As Moussa Somb et toute l'agence euh, ATM. Euh, voilà Abdou temps yi bëri ngay bisou de. <laughs> bisou nag beneen bisou nag doo doo ko. bisou bisou ma chérie ah. maa yow foog ñu ànd génn comme ça xam nga. Eh, eh. <laughs> def ay yëf. Eh, toi aussi Marie c' était un plaisir quand même d' avoir accepté l' invitation xam na ne temps yi moom da ngaa xaw a occupé et tout mais bon ñu bàyyi la rek toi aussi nga wax say dernier mot xam naa léegi nga. naawaat dem bàyyi ñu fii Sénégal. <laughs> baal naa la ndànk waaw fii moom mënu ma fi toog parce que aussi dama yor ay activité mm-hmm. donc c' est ça nga rek boo yoree entreprise aussi mënoo toog. donc voilà. Mm-hmm. même boo toogee sax xel mi du dal. parce que liggéey moom neex na aussi nga koy assister comme ni nga ko bëggee. Mm-hmm. donc du coup ça. d'accord uh, voilà en tout cas mm-hmm. kontaan naa. ñoo far <laughs> maa ngi lay jaajëfal ci invitation bi. ñoo far di jaajëfal ñi seetaan Sénégal 7 point mm-hmm. com. Mm-hmm. et kontaan naa daal. merci beaucoup et maman tu le fais un bisou. oui bisou à maman. grâce à toi je suis devenue Mia comme ça. ndeysaan bisou maman. <laughs> bisou euh, vraiment. <laughs> elle Abdou. Abdoul. eh Seigneur. Toi aussi, maman, tu vas faire un bisou à mon Oh oui, cette, cette lionne-là, ma lionne, comme j'ai l'habitude de l'appeler, hein, c'est une vraie lionne, ma mère. Donc, je mhm. te fais un gros bisou, maman, un gros bisou à toute la famille, gros bisou tonton Lamine, mes grands-parents, mes tatas. Donc, Les jeunes. tout le monde. Gros bisou à toute la famille et l'arabe aussi, l'arabe international. L'arabe <laughs> quoi et mm-hmm. Christine aussi. Christine. Euh, et voilà sama góor yi. Pisco Boubacar Dadi. sa gang bi euh, quoi. voilà gang bi quoi. la first family gangu mafia la yor nag booy bi bu leen ko gis nii kanamu innocente bi mu yor. <laughs> donc la first family gros bisous à vous. ndeysaan surtout Marie Christine fu mu nekkee yéen ñaar ngeen ànd. ça veut dire c'est bizarre uh-huh. Uh-huh. <laughs> merci à vous deux hein. c'était un plaisir quand même hein, de vous accueillir ici parce que c'était pas évident merci d'avoir accepté l'invitation di remercier ñëpp bon je fais un coucou hein, au big up à waa Facebook le Sénégal comme on aime hein je les fais un big up ñoom Villet Noir Vincent Bernard Thiaw et Auguste et gros bisous à Rita Jano sama sama sama ennemi à Miss euh, Barham Niass aussi, Nina Penda Faye, je te fais un gros bisou. Prudence aussi, pareillement, Brigitte euh, Badji, voilà, comment je Diola, la Diola et vous êtes bizarre, t'inquiète pas. Et big up à vous tous, merci aussi, big up Abdou, réalisateur bi nekk ci ginnaaw moom ak bisou aussi, parce que gars yi bu ñu gisee rek ñoom la. te les femmes aussi vous voyez les femmes ndekete femmes yi xam na ay bouton quoi. de ah les femmes euh, ñoo sont fortes bisou mooy def lii yëpp xam naa Abdou day taxaw foofu di xool rek. bisou. Mm-hmm. on te félicite. ndeysaan félicitation d'accord voilà ndeysaan bonne continuation. merci waay bonne continuation bisou. Mm, kii na nag. <laughs> le roi de l'information. en temps réel. www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram.